dana xiyaar saña muy ca jaay ga mbaa jënd ga ak saña bàyyi mooy xiyaar dana ñaari xaaj la am na ci boo xam ne dañ ko tudde xiyaaruk setantal maanaam maanaam kooka day seet ba xam dana muy ca jaay ga mbaa jënd ga wala day del fu gannaaw la kooku jëndoon gannaaw ba dañ caa gis sikk wala am ku wax ne maa ci moom nangam ba mëtatul nam toll woon dañu may na xiyaar kooku ci mu muy def ndegam lam jëndoon am na sikk mbaa am na lu ca wàññiku xiyaaru taraw yi la ne mooy ñu jaayante jaayante goo xam ne am na ko sañ a wax ne li fekk sàngam daay seet ba xam damay yéen jaay gi mbaa jënd gi am damay bàyyi mu ne moom nag li fekk sartuñu ko du mën a am ndax la hadis bu wéral ne ñaar ñooy jaayante li fekk ñu nga jotaay bu taqalikooguñu ku ne sañ naa tànn ba xam day yéeyalam day bàyyi Malick moom dafa jàppul hadis boobu jàpp la waa Madina jëfandikoo kon sañ a yooyu ca njaay ma mbaa jënd ga ak sañ a bàyyi li génn naa ci duñ ko sartante wut du mën a am mu ne koo xam ne bokkut ca yooyu jaay ko jëndante sax mën naa moom xiyaar ga maanaam mën naa am sañ-sañu wéel ga mbaa bañ gaa wéel mel ne ñaar ñu jaay ko jëndante juboo ci ne buñ waxaalee ba juboo itam kat jiw sàngam mooy seet ba xam li fekk dat sàngam dana wéel njaay la njëlante ni wala du ko wéyal nga xam ne diw moom lañ ñu wax moom jaay jëndut waaye ci moom lañ féetali xiyaar gi wax ni moom mooy seet nag ci biirub xiyaar bi ndax dana wéyal am du wéyal su ko defee diw moomee nag mooy daal di moom kàddu ga loolu ñuy jaay ko jëndante duñ ci am sañ-sañu wéyal mbaa ñàkk wéyal diw moomee rek lépp ci moom la aju léegi ba tey bu ñu nee dañuy jaayante ci kaw buñ ko waxee diw te xolam sedd ca njaay mi yooyu dog bi ko waxee mu ne neexu ko nag njaay mi bii ne loolu ba tey diw moomee ñu wax ne ci moom la ñuy dellu bu ko neexee njaay ma dog bu ko neexul njaay ma du dog ci moom rek la lépp di aju maanaam xiyaaru bala maa ñëw ci jaay gi mbaa jënd gi dama ciy diisu diw ba noppi day wane ne kay jaay mbaa koy jënd bu ci kenn ne dañuy waxaale bu jubóote balaa njaay ma dog ma diisoo sama baay mbaa sama xarit mbaa jiw sàngam ba xam lu may wax ñu juboo ca noonu mu ne moo xam jaaykat baa moo xam jëndkat baa ma mu ne woon bala maa wéel damay diisoog diw bu ko neexee jekki-jekki wéel jaay gi mbaa jënd ga te du ca diisoo kookee bu ko neexee mu jekki jëkk ne bàyyi naa diisoo gi bu dee koy jaay mu ne damay far jaay bu dee koy jënd mu ne damay far jënd dañuy seet nag lan la ñu wax ca diir boo xam ne diirub xiyaar ba waru ko ëpp mën na koo yées nag ca na ci juboo waaye waru ko ëpp mu njëkkee bu dee suuf ak lu tax ci suuf mel ne garab ak tabax lu mu yàgg-yàgg mu weesu fanweeri fan ak juróom-benn mën nga ne weer ak juróom-benn fan bu dee jënd suuf mbaa kër te jënd ga sotteegut du ca sañ a dëkk lu yàgg te fayut bu dee fay moom mën na dëkk waaye ndegam nag moomu ko moom mu ngi ci xiyaar da ci sañ a dëkk lu yàgg rek noonu te du fay dara bu sarte ne faaw daal su siñ may jaay ci biir waxaal yoon yu juboo ci ne li seen jaay mi dog dama fay dëkk ci dama fay dara su boobaa jaayante ga day far yàqu ndax da sart ne day soppandiku ci loolee ñu jaay te moom ñëwagul ci ak moomeelam moom mu bëgg jënd nag suuf sa jëndu xiyaar su ne dama ciy dëkk waaye damay fay ci biiru xiyaar bi loolu moom dagan na moo xam dana yàgg moo xam du yàgg ak lu tax rek mu bëgg faa dëkk ndegam day fay rek moom dara nekku ja dagan na itam suuf sa mu jënd di ko waxaale ci xiyaar mu dëkk fa ndiir su gàtt soo xam ne bëgg a seet barab ba rek tax waaye du yàgg diir bu gàtt lay doon bu doon yàgg moom lu la waxoon du ko sañ waaye nag li wax nii mooy lu néew lu ñàkk solo la fay nekk rek ngir bëgg a seet barab ba ba xam nu mu demee de sax lu mu gàtt gàtt bu fekkee jubluwul ci seet barab ba ba xam mu dagan bu fekkee ne ca waxaale wa seet suñu woon ne moom muy jënd day dëkk ca barab ba waaye teewul nag mu dëkk fa lu yàgg mbaa mu dëkk fa loo xam ne yàggut waaye seet barab ba taxut te it amu ci woon digal kon def na lu war a def te itam warees naa seet jur boobee la mu ci war a fay mu fay ko ja la ñuy jaay jaayu xiyaar bu dee jaam yooyu jamono jaam dafa amoon kon li mu yàgg-yàgg diir boobu mu ëpp fukki fan fukki fan mbaa mu yées ko boog te nañ ci jóge waaye bu ko ëpp la ñu waxoon tam ci dëkkee suuf sa loolu ñu wax ci liggéeyloo jaam ba mën na koo liggéeyloo liggéey bu néew boo xam ne dimuwu ca lu may xam ba xam ne ab liggéeyam demee te lu ñëw lay doon bu sartee ne faaw daa koy liggéeyloo mu daal di yàq jaay ga na mu ko doon yàqee ca ba mu ne faaw da dëkk ci suuf si sart ko ca da nga waxoon ca suuf sa ne mën na caa dëkk ci kaw fay ba tey jaam bi muy jënd jënd xiyaar mën na koy liggéeyloo ci kaw fay lañ ca war a fay ba tey bu doon ay yére yoo xam ne da ko bëgg a jënd jëndu xiyaar wala daaba jum bëgg a jënd kon sol bi yére yooyee mbaa war daaba joojee atte bi nga wax léegi ci dëkkee suuf sa mbaa liggéeyloo jaam ba ñooy bokk ci anam yëpp xeeti marchandise yi mel ne rajo montar ak yeneen yi nga xam yëpp rek ku koy jënd jënd xiyaar àpp ba wërte wees juróomi fan mën a ko yées nag dinañ ci jóge waaye bu mu ëpp juróomi fan xeeti daaba itam bu fekkee ne bu lu ñuy war ni ki day nag mbaa gàtt ba ci sax xeeti ganaar yeeg xanaar yeeg yooyu noonu lañ mel lu mu yàgg-yàgg diir ba ñuy wax bu weesu juróomi fan bu dee nag day lu ñuy war day daaba dañ di ko war te bëgg caa seetaale wàllu war ga nag ñu daal teqale ba xam daa bëgg seet war rek ca biir dëkk ba du ko génn am day génn nag daaba ja day jënd daaba jëndu xiyaar te sart ne da koy war ci biir dëkk ba kon dañ ko àppal gën ngaa yàgg ñaari fan bu mu ko ëpp bu dee nag da koy war te du ko war ci dëkk ba day génn ak moom daa sart ne day génn ak moom dëkk ba kon bu weesu ñaari bëri biir ñaari bëri génn wàlluk doxub wàññi te dégg nga doxu wàññi ba tàyyi borom muxtasar nag moo ko teqalee noonu wàlluk daaba yooyu sëriñ bii ëpp ko ca noona mu ne ñu bokkut ak borom muxtasar dañuy wax ne xeet daaba moom diiru xiyaar ba ñetti fan la war a doon mbaa bañ koo sori moo xam la tax li wut xiyaar ba bëgg war a tax mbaa leneen mi ngi seet nag la nga ko sañ a war ak la nga ko suñuta war nag ci biir dëkk ba mbaa ci biir dëkk ba moom la ñu takk ci lu tolloog bis mbaa ñaari bis mbaa lu tolloog bëriit mbaa lu tolloog ñaari bëriit bi mu ne nag bi ngeen jaayantee jaayante goo xam dog na ba ka nga xam ne mooy jënd fay na ba noppi mën ngeen a juboo ci li feeg sàngam kenn ci yéen ñaar bu ko neexee yooyu ci na ngeen jëflante bu ko neexee bàyyi mënista boole ci waxaale wu rek jaayu xiyaar ak jaayu dog gannaaw bu ñu waxaalee bu juboo koy ba koy jënd fay ba nopp lañ ne bu ngeen neexee juboo nag ci xiyaar nga xam ne bu ñu juboo woon ci dog jaay ga te kiy jënd fay itam dagam fayul rek duñ mën a def nag xiyaar naa li fay sàngam kii bu ko neexee bàyyi mbaa bu ko neexee wéy faaw de aajoo rek koy jënd gannaaw ba njaay ma dogee ba nopp mu fay ba noppi ñu door a mën a doon nag wàllu xiyaar ndegam nag ba ñuy waxante xiyaar ba daa fekk ñu waxante jaay gu dog ba jëndkat ba fay ba noppi léegi moom jëndkat ba moo gàddu moo garanti lu ci xew ngaañam lay doon wax leen la diir ba nga xam ne xiyaar ba waru ko weesu ci mu ne mu ne nag bu ñu sàttee diir bu gën a sori booba mu ne suuf nga waxoon ca weer ak juróom-benni fan loolu waxante woon ci jaayu suuf sa ñeent fukki fan mu daal di yàqu jaay ga yàqu xiyaar ga yàqu wala ngeen wax àpp boo xam ne mënu su koo xam mel na rek bu asamaan seddee mooy bu tàmbalee taw bañ mën a ji wala diw ma tukki bu ñu gisee te xamuñu kañ la ñu gisee wala ñu bëgg ko aj ci diisoog jëmm joo xam ne dafa sori xamuñu teel la ñëw nga xam ne wóor na ne moom balaa ñëw diirub xiyaar bi dana fi weesu lu bare bari moom mu door dikk loolu moom wóor nañu ba tey kon du baax ndax loolu moom léegi umpale rek moom diir bi ñu umpale ñooy moo sarf mel ni nag moom bi nga ko see waxante ci jaayante ga rek jaayante ga yàqu na bu ñu nee waxante woon ci sarf dindi lañu ko itam dindi ga du ko tax a baax bul defee ne rotal sart bu maanaam dindi sart ga dana tax jaay ga defaru déedéet yàqu na yàqu na rek jaayu xiyaar ga bu dee ay yére koy jënd wax ne damay sart ne daay soli yére yi loola day yàq jaay ga te bu solee yére yi lu yàgg itam bu ko soree lu bari jaay ga yàqu na ba noppi nag war naa fay lu tolloog la mu sol yére yooyee waaye nag bu jënd ay yére mbaa lu ko nuru daañu ko may mu natt natt yére ba xam nu mu demee ci moom bu dee jaam itam ni ñu ko waxee woon daañu ko may mu liggéey loo jaam ba ngir seet ba xam xam na muy liggéeyee waaye liggéey bu néew a néew rek da nga moom da koy jënd ngir liggéeyloo daañu ko may mu liggéeyloo ko lu néew a néew nga xàmmee ja na muy liggéeyee dañ la waxoon ci gannaaw ne la bu jaayante ga yàqoo te ak jënd ji ko ba yore ko yore ga tax na mu gàddu garanté boobee ñu ne woon tam jël boobee la mu ci jëriñu lu ci feeñ ci njëriñ moo koy moom day fekk jaay ba nekkoon jaay gu dog waaye bokkut ak jaayu xiyaar gi jaayu xiyaar gi buy fàtte ne faaw ki jënd day fay si saasa dal lay yàqu ne sax bu ñu waxaan ba juboo ca waxaale wa te jënd nag fay ci coobare wu moom waaye sartuñu ko du ko yàq waaye bu ñu ko sartee rek moom bu fayutit du tee jaayante ga yàqu li mu ne nag jaayu xiyaar buy sarte ne faaw te jënd day fay si saasa mu daal di yàqu da ci bëgg a teg juróom-ñaar yoo xam ne noonu lañu mel buy sartee ne kooku day fay fa saasa dañ doon jëflante daal di yàqu mu jëkke la ñuy jaay di loo xam ne du suuf te itam fa nekk dafa sori jaayante ga moom du xiyaar ca dëgg-dëgg jaay gu dog la waaye dañuy wax rek na mel te mu sori boole ca ñu wax ne nag ki jënd di sart faaw day fay loola dal nay yàqu bu fekkoon ne nag loolee du suuf waaye dafa jege wala boog muy suuf suuf moom mu soree mu nekk soree ci yam bu ndogoo ci faaw kooku day fay itam du yàqu dañu daan jaay jaam juboo ci juróom ñetti fan lu ci xew moom muy jaay moo koy gàddu koy jënd moom gàddoogul dara loolu lañ tuddee xuf datu talaas loolu nag buy sàrtee ne faaw koy jënd day fay fa saasa mu daldi yàqu buñ koy jaay ab jébéer jaay gu dog ci kaw nag dañ koy tëttarloo na nga xamoon te mooy ñu teg ko ci loxo ku ñuulu ba xam dara gis deret ñu xam ne ëmbut am du ko gis ñu xam daa ëmb ba gisee deret jaay ga wéy bu gisul deret nga xam ne kon daa ëmb jaay ga du wéy buñ ca sarte ne faaw ko jënd day fay sarte ba daal di yàq jaay ga suuf soo xam ne dañ koy bay waaye léeg-léeg asamaan si taw bañ mën koo bay waaye léeg-léeg day teggeeyu du am ndox kenn du ko mën a bay buñ koy luyee nag te sart ne faaw ka koy luyee day fay passage mu daal di yàqu jox lu mooy di ko def looloo xam ne xëy na mu sotti xëy na du sotti mel ne ma lay seetali la réer bu feeñee nga jox ko nangam bu feeñul nag amee loo ko dara lu mel noonu buñ sa sarte ne faaw dañ koy jox dañ ko war a jox bu téye si saasa mu daal di yàqu maanaam buñ dee wet yoon ay tool di ko fay xam nga mbay ma moom yàlla mën naa def rek benn bis jur gi ñëw lekk ko mbaa njëriñ yi ñëw raatale ko kon nag buñ nee dañ koy fay mu wattu tool bi weer mbaa ñaari weer buñ ci fàtte ne faaw dañ koy fay si saasa mu daal di yàqu ndax loolu wóorut xamuñu dana fa am benn fan mbaa ñaar tool ba yàqu ba tey sax buñ ko doon sàmmaloo ay gàtt yu ràññeel ko yii lay doon mbaa di ko ñawloo ay yére te ràññeel yére ba gàtt yi mu war ko sàmm di sàngam ñu fay ko nàngam mbaa yére yi mu war koo ñaw ba àggal ñu fay ko nàngam bu sàtte ne faaw dañ koy fay si saasa mu yàqu ndax bu dee yére ba mays na koo sàcc laata mu koy ñaw bu dee gàtt yoo muy sàmm mën nañoo dee mën nañ koo sàcc te ji bu war a sàmm ma tagut loolu moo tax yi buñ sa sàrtee fay ko sa saasa rek mu yàqu buñ dee luy jëmm joo xam ne ju ràññiku la mbaa leneen sax mel ni kër mbaa oto mbaa leneen ñu ràññee ko ne dañ koy luyee dee sàngam waaye nag ka koy luyee balaa tàmbalee jëfandikoo li mu luyee ñu am loo ëpp genn wàllu weer wala ñu ne bu waxaale ba juboo daañ ci teg ñaar fukki fan bu dee ku ñu dal di ko liggéeyloo mu door a tàmbalee liggéey wala bu dee kër gu ñu luyee mu door a tàmbalee dëkk lu mel noonu buñ ca sàrte ne faw day fay fi saasa mu daal di yàqu yam weesoon mooy ya nga xam ne buñ ca sàrtee fay fa saasa mu yàqu waaye ayuñu woon fay ga ci coobarewu muy bëgg a wax nag yoo xam ne moom buñ ca fayee fa saasa rek mu daal di yàqu doonte sax sàrt ni woon fay ga fa saasa kookaa coobarewu fay rek du ko tee yàqu ñu far ci joxe takk-takk boo xam ne say boo jàpp ko mooy buñ sàkkalee loola xiyaar maanaam jur boo xam ne am na ko sañ a wéel ak ñàkk wéel mooy tànn ñu gis nag ne loolee ñuy wax bala ñu caa jot diiru xiyaar ba dafa jàll diiru xiyaar ba day ñëw ba jàll ñu door a jot ci loolee ñuy wax waaye nag ci sartu igaagaana laa yorafu bi ay ni su fekkee daal la ñuy jaay noonee ci xiyaar bala ñu caa jot diiru xiyaar bi jeex ba noppi ñu door caa jot njëgga itam nag ñu kañ cay fay doon misliwu lu ñuy peese mbaa natt mbaawal ñi xam nekkut lu ràññiku kooko day gàddu ci joxe ko rek gàddu ko ci aw loosam lu mel ni moom bu kooko teewalee njëgg muy ci coobare ak muy ci sart ñoo ci yemoo day daal di yàqu bu dee mu waa doxa boo xam ne jaay gu dog la mooy ko wees woon nga xam ne buñ ca sartee fay fa saasa mu yàqu waaye bu coobare woo rek fay moom du yàqu fii mu toll nag mooy mu waa doxa boo xam ne dañ koy jaay jaayu xiyaar kooku moom bu ñuy fay rek mu daal di yàqu moo xam dañ koo sart moo xam sartuñu ko ku jënd jébér boo xam ne jënd ko xiyaar la ci kaw mu waa baxa mooy dañ koy teg ci loxo ku ñu wóolu ba xam dana gis deret am du ko gis kooku du dag mukk ñu teewal ca njëg moo xam dañ koo sart moo xam da koo coobareew ndegam njëgg nekkul lu ñu mën a xam man ko ràññeel teg ca baaraam lu ñuy jaayit loo xam ne nekku fa waaye jaay ga jaayu xiyaar la géemu weesu woon jaay gu dog la woon waaye fii moom mooy loola nekku fi te jaay ga dogut buñ ca teewalee njëg rek mu yàqu moo xam suuf la moo xam du suuf moo xam teewal ga luy sart la moo xam kookaa ko coobarewu wakkiraay mooy luy mën di luyee ni ki kër wala oto mbaa leneen bu dee luyee ga nekkul luyee gu dog xiyaar la am na ca ku sañ a yooyu ca luyee ga mbaa mu bàyyi wala ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk bu la neexee yooyu bu la neexee bàyyi nga xam ne kon luyaasu xiyaar rek la buñ koy teewal rek fi saasa mu dal di yàqu moo xam dañ koo sàrt teewal ga mu xam kooku aj coobarewu bu la luyee woon oto ngir nga dem ci ndakaaru moo xam nga ciy sëf mbaa daal yaa xam la tax nga luyee ko waaye nag danga kon li feeg sàngam kat danaa seet ba xam danaa doogu ci dem ci yoon yooyu déet ñuy ci luyee gi bu ma demoon nag bàyyi loolu kon xiyaar dong la buñ cay fay rek fa saasa mu yàqu moo xam dañ koo sàrt moom pay ga moo xam sàrtuñu ko bu doon daayu xiyaar moom kooku coobarewu rek fayal boppam du aay waaye luyaasu xiyaar moom buñ ca teewalee rek mu daal di yàqu wa salam bi ci mujj nag du xiyaar mooy dana wax ci kanam ne salam nga jubóog moom ci jox ko njëkk mu jëndal la nàngam xam ne ne amu ko waaye da koy wut andil la ko dañuy wax ne bu la neexee nga ne ko ba ma laa jox njëg gi mu am fi ñaari fan ba ñett te bañ a weesu ñett daañu leeral foofu ne bu la neexee nga ne ko lañ ci dugal xiyaar mooy li fekk ñetti fan yi bu ma neexee dellu ci gannaaw ne bàyyi naa bu ma neexee te wéyal nga xam ne kon salam boobu ni ko guddoog daa am xiyaar salam googu dañ koy fay njëgg fa saasa rek doonte kookaa ko toobare waaye sart ñu ko woon mu daal di yàqu mu ne nag moo xam kay jënd moo xam kay jaaya moo xam keneen a ka amee xiyaar daal ka amee sañ-sañu wéel ak ñàkk wéel daal bu waxee lu wane ne wéel na ñu jàpp ne wéel na bu waxee lu wane ne dellu na gannaaw it génn na ci la mu waxoon it ñu jàpp ne génn na mën naa doon nag wax ju dog ju ñëpp xam mel ne mu ne génn naa ci njaay mi mbaa génn naa ci jënd gi ba tey bu fekkee ne ka amee sañ-sañ wéel ak ñàkk wéel waxul dara ba datu xiyaar ba jeex dañuy jàpp ne kon deltu gannaaw wees na ñu daal seet nag la ñuy jaay kam nekkoon ci loxoom moo xam moo amee woon sañ-sañu wéel ak ñàkk wéel moo xam du moom keneen la waaye daal la ñuy jaay kam nekk ci loxoom rek moom la ñuy seet bu dee jaaykat baa ñu ne ko ndegam mu ngi si loxo ba tey dañuy jàpp ne yow jaayatoo léegi suuf rek nga yor la ñuy jaay nag bu nekkoon ci loxol te jënd noonu te fekk diir ba jeex dina ko jënd nga ba noppi mënatoo waxati ne jënduma doonte sax ka yore la ñuy jaay bokkut ak amee sañ-sañu wéel ak ñàkk wéel it noonu lay demee su fekkoon ne diir ba daa jeex te fekk la ñuy jaay ma nga ca loxoy ka doon jaay moo xam ma amee sañ-sañu wéel mbaa ñàkk wéel wala jëndkat bu mbaa keneen moom daal rek mu ngi ci loxoom rek dañ ko wax ne ko léegi jaayatoo suuf rek nga yor bu fekkoon ne dañ doon jaay daa nekkoon ci loxo yi ka doon jënd bañ àggee ci waxtu wa mat nag ñu ne ko kon yow mi doon jënd dem sa loxo la nekk jënd nga ba noppi mënatoo cee deltu gannaaw day wane ne leen lu ne waxoon nañ ca na datu xiyaar ba war a toll bu nee nag bu daat ba jeexee rek ka njaay ma nekkoon ci loxoom amatul sañ-sañu wéyal mbaa ñàkk wéyal loolu lay wax ne nag bu fekkee dat ba jeex na waaye benn fan baa ñaar rek moo ci topp gisu ko xañ àqam jooyee ndax benn fan baa ñaar moom yeggut gannaaw nag bu diir ba jeexee bañ teg ca dañ ko cay may mu benn fan baa ñaar du ñu nangooti ak delloom gannaaw mel ne bëgg a wax nangu moon waaye nangu naa mbaa dama génn ci lépp lépp lu may mu taxawal seere loolu nag danga waxoon léegi ne mën naa am la ñuy jaay kam nekk ci loxoom fekk mu amee sañ-sañu yooyu lépp ñàkk yooyu lépp naa am itam sañ-sañu ba nekkoon ci loxol keneen waaye ku ci mën doon daal moom bu diir ba jeexee ba lañ ko cay tegal jeex duñ ko mayeti muy waxati dara xool loolu mu ne su fekkoon ne kiy jaay lam doon jaay ñu ñëwoon ci loxoom waaye nag jëndkat bi ci bopp moo amee woon sañ-sañu wéyal ak ñàkk wéyal dañ ne woon ndekam ñu ci loxo jaaykat bi moom bu diir bi jeexee rek dañuy jàpp ne jaaykat bi jaayatut yooyu jamono na bu jëndkat ba ne woon laata dat bi jeex kat waxoon naa ne wéyal naa bëgg jaaykat ba jox ko njaay ma ko it faaw mu taxawal seere su seere ne wax na dëgg laata dat bi jeex mu jëndkat bi wéyaloon na ak jëndum su fekkoon ne jaaykat bi li mu doon jaay li ñu woon ci loxoom te it moo amee woon sañ-sañu wéel ak ñàkk wéel day ne woon gannaaw bu dat bi jeexee lam doon jaay day mel ne jaayu ko woon mu nekk ci ak moomeelam mu ne yow jamono nag bu ne woon jaay mi dogu woon naa ci ba kii jënd nangu ne jënd na ba noppi xam ne kon li mu doon jaay da ko war a téye waaye li mu bëgg a wax nag léegi mooy waruma koo téye ndax jubóo woon na ma ak jëndkat bi laata dat bi jeex dañ dogu ci ne moom jënd na ko it su jënd kat bu gàntoo faw mu taxawal seere moom jaaykat bi ne jënd mi sotte woon na te seere yi ñoo ko seere woon dalaa leeraloo jaaykat bi ci boppam bala ñuy jaay nekkee ci loxoom mu taxale ba mu ca boolee moom saña wéyal ak ñàkk wéyal ak ba jëndkat bi moomee wéyal ga ak ñàkk wéyal muy bëgg a wax nag bu fekkee ne jëndkat bi ci boppam moo yoroon lañ doon jaay moom itam mën naa am mu boole woon ci sañ-sañu saña wéyal ak ñàkk wéyal mën naa am itam mu ngi ci loxoom waaye jaaykat ba moom moo amee woon sañ-sañ wéyal ak ñàkk wéyal li mu njëkk wax nag mooy dattu xiyaar bi moom jeex na waaye nag ki doon jënd moo yore woon la ñu doon jaay te it moo amoon sañ-sañu wéyal ak ñàkk wéyal dañ ne woon da dat bi jeex na rek dañ ne woon ci loxoom du man lu may jàpp ne jënd na ba noppi lañ doon jaay moo ko moom ci kaw fay njëgg léegi nag bu bëggoon a génn ca njaay ma daal di wax ne kat laat dat bi jeex waxoon naa jaaykat bi ne ko delloo naa la sa yëf jëndatuma jaaykat ba ne déedéet dañ ko wax ne ko jëndkat bi faaw nga taxawal seere su seere ni li nga wax dëgg la loolu mooy bi nga xamee ne jëndkat bi ba tey dañ doon jaay ci loxoom la nekkoon ba dab xiyaaru bi jeex waaye nag yooyu jamono da doon jaay mu amul sañ-sañu mais nag ñàkk weel kon bu dab bi jeexee ci doon jënd dal na moom njaay ma war a fay njëgg léegi nag jaaykat bu duggee nangu njaay mi tax mu ne laat dab bi jeex kat waxan naa ko ne ko man jaayatuma it waaw rek mu taxawal ay seere mbaa du nangu la mu wax fu la fi waxee ne la bala nangu ay waxam mu indi ay seere moom jaaykat mbaa jëndkat ba day fekk rek kam ko seqal ñàkk déggoog moom ca loola waaye bu fekkee nangu na la mu wax rek duñ ko wax ne ko andil seen seere daa waxoon ne gannaaw bu daat ba jeexee lañuy xàmmee ne ka sañoon na wéel mbaa mu ñàkk wéel wéel na mbaa ñàkk naa wéel benn mu lu mu wax ñu xame ko ca waaye nag mën naa doon jëf ne yi mu wax nii jamono yi jaam xëyee bu fekkee leen doon jaay njaayum xiyaar da di ab daam kon ka sañoon na wéel mbaa mu ñàkk wéel bu dee ka doon jaaye laata dat day jeex bu daal di jotanteeg jaam ba ne ko jox ma nangam tàggoreel la day jàpp ne kon moom jaaye tut ba tey bu fekkul laata dat bay jeex wax ne jaam ba ne ko su ma génnee àdduna gore nga kon moom jaaye tut fekkul laata dat bay jeex jaam ba day jigéen wutal ko jëkkër mbaa day jaam bu góor wutal ko soxna te wax ne ko kon yow jaayetoo fekkoon na it day jaam bu jigéen bu daal di jotee ak moom bànneexu ci moom ñu jàpp ne kon jaaye tut ba tey lam doon jaay jaayum xiyaar tat bi jeex gu mu daal koy tayle dem tayle ko keneen dañuy jàpp ne kon moom jaayatut wala boog lim doon jaay njaayu xiyaar moom mi ko moom doon ko jaay mu jekki-jekki dat bi jeexul mu jaay ko keneen ba tey bu yóbboo loolee ca marché ba ne da koy jaay rek doonte jarutit waaye yóbbu na ko ñu xam ne moom da ko indi fii ngir jaay doonte benn woon la dañ koy xam ne kon moom génn ci la waxante woon ak kee wala muy ab jaam mu daal di koy ñaas ñaas wuñ koy xàmmee ba tey bu doon beneen dundat mel ne gëléem mu ñaas ko mbaa mu nag mbaa leneen mu ñaas ko itam ab jaam la ci misaal mu tay ko gaañ ko ni ki dagg ab loxoom mbaa lu ko nuru mbaa mu leneen mu yàq ko te tay ko bu fekkee ne jaam ba lam ko def moo ko tay wala leneen la lam ci yàq moo ko tay te fekk ni ko doon jaay jaay xiyaar dañu xam ne kon moom daa génn ci jaay gam nga doon jaay moo tax mu tay ko ba noppi def lii ci lim doon jaay li ñu wax nag yooloo maanaam lam doon jaay mu luyee ko mbaa bu dee lu ab jaam mu ne ko dama liggéey dina jox kay jënd moom bu defee loolu jàpp ne jënd na ba noppi mel ne tey bu nga doon jaay jamono jaam xewee ab jaam bu góor njaay mu sotteegut waxagoo ba xam damay dogu jëndam déet waaye dangaa wëlbatiku nag yebal jaam bu góor bu muy liggéey fenn ñu koy fay yow mu jënd moom boo ko defee ñu jàpp ne jënd nga ba noppi waaye nag kii jaay moom bu ko defee itam dañuy jàpp ne li muy jaay ci njaay mi dogut fay na daawut njariñ kon moom joxe jaam bu feneen muy liggéey ñu koy fay taxagut ñu ne ko sañatoo wéyal ko tey bu ko neexee wéyal tey jaay daal moom ndegam njaay mu dogagut mu dugal loola fu mu amee njariñ mel ne du ab jaam sax waaye da ko luyee di ca am njariñ di fi njaay mi dog sañ na ko te kenn du ko wax ne ko dangaa génn ci njaay mi yem wees yépp nag moom bu ko jaaykat bi defee ñu jàpp ne jaayatut waaye bu ko jëndkat bi defoon nag ñu jàpp ne moom daa wéel ak jëndam la mu doon jënd ab jaam jënd koo xam ne li fekk sàngam bu ko neexee wéel bu ko neexee bàyyi loolu batiku nag waxi daam ba ne ko dama jotoo yow boo ma joxee nangam daal ma goreel la kii jënd bu defee loolu ñu jàpp ne wéel la jënd ga ba moo tax muy jotoo jaam ba noonee ba tey bu ne woon jaam bi gannaawal naa la mooy su ma deexee rek gore nga day jàpp ne kon wéyal la ak jëndam ba noppi ba tey fekkoon na jàmbari jigéen mu wutal ko jëkkër mbaa muy góor mu wutal ko soxna jàpp ne jënd na ba noppi ba tey bu doon jàmbu jigéen mu am bànneex ci moom ñu jàpp ne maanaam mu bànneexu ci moom dañuy jàpp ne kon jënd na ba noppi ba tey bu doon leneen bu daal di koy tayle naa doon jaam sax moom daal la mu doon jënd ci li fay sàngam sañ na maa wéyal mbaa ñàkk mbaa sañ na maa ñàkk wéyal daa jekki-jekki dem tayle ko ci barab dañu jàpp ne kon daa wéyal jënd ko ba noppi nag moo tax ma dem di ko tayle ci barab wala mu dem jaay ko da ko doon waxaal li fay sàngam sañ na maa bàyyi sañ na maa wéyal jënd gi far dem jaay ko dañu jàpp ne kon daa wéyal jënd ko ba noppi nag moo tax mu jaay ko wala jaayu ko dëgg-dëgg waaye yóbbu na ko fa ñuy jaayee dagam moom dogu na ci yóbbu ko fa ñuy jaayee doon ci jarut it dañuy jàpp ne daa wéel ak jëndam ba noppi nag moo tax mu yóbbu ko fa ñuy jaayee wala muy ab jaam mu daal koy ñaas ñaas bu mu koy xàmmee day jàpp ne kon daa wéyal ak jëndam wala muy ab jaam mu tay ko gaañ ko ni ki dag loxoom ba tànkam day jàpp ne ba tey daa wéyal ak jëndam bu fekkoon ne sax loola du ab jaam mu tay ko nag yàq ko itam moom mi nga xam ne mooy jënd jëndu xiyaar dañuy jàpp ne kon daa wéyal jënd ga moo tax mu tay ko di ko yàqee noonee waaye nag taxamudul jinaaya daa bari ay teqale lool lool boo xoolee ci xaasiyatu saawi tam tàmbalee ko ci xaasiluhu annahu ida janal baa'ihu zamanal xiyaari wal xiyaaru la fa in kaana amdan fa huwa raddun lil bay'i wa in kaana qataan fa lil mushtari xiyaarul aybi banam àggee ci wa in janal mushtari wal xiyaaru la amdan moom daal daa bari ay teqale lool lool bu fekkee yitteel na la man nga koo seeti foofa su fekkoon ne ka doon jaay mbaa ka doon jënd ci kaw ci kaw li fekk nangam sañ na maa wéyal mbaa sañ na maa bañ a wéyal dafa faatu kon bu fekkee amu wutoon ay bor ba amoon bor waaye bor yi mënta jeexal alalam kon ña koy donn ñooy seet ba xam dañuy wéyal loolee am duñ ko wéyal su fekkoon ne nag daa gàddu ay bor yoo xam ne bu fayee jeexal tàkk mbaa du matal sax kon ña moom bor ya maa ñoom war a fay ñu amee sañ-sañu wéyal lam doon jëfalante ci wàllu jënd ga wala ñàkk gaa wéyal ndax léegam bor yi mu amee moom bu fayee jeexal mbaa du matal sax kon tey doon war sa doon dara borom bor yi rek kon ñoo moom àq ja léegi su fekkoon ko doon jënd jëndum xiyaar moomu dafa faatu te nag ña koy doon limu te leen wax ne leen benn ngeen wéyal jël ñu doon jaay lépp benn yoon mbaa ngeen bokk bàyyi delloo njaay mi boroom waaye du nangu ñenn ñi bëgg a wéyal bëgg a fab lenn ci jaay ma ñenn ña bëgg a bàyyi ne duñ jël seen wàll mais nag lay xiyaas mooy su ci amee ñu wax ne nan delloo lépp am ñu ne déedéet nañu yéen jënd gi say boo ñu fekk ñu wax ne nañu delloo lépp benn yoon jëm rek ca njënd ma ka doon jaay te la mu doon jaay mais nag bu fekkoon ne ka doon jaay ci boppam jaayu xiyaar gi moo faatu way doon yee nag léegi taxaw taxawaayam kon bu ñenn ñu ne nañu yéen jaay gi fab njëg gi séddoo ñenn ñu ne nañ delloo si jënd gi ñu doon jaay séddoo ko mu ne foofu moom day safaanoo jënd kër ga li gën fii mooy ndegam am na ñu wax ne luñ wéyal jaay ga rek ñu bokk wéyal jaay ga mooy gën su ko defee nag ka ne woon nañ téye njaay bañ koo jaay bañ leen a faale te rek wéyal jaay ga daal di fam njëg ga séddoo la ñuy jaay ci xiyaar génnagut moomeelu ka ko moom donte sax kay jënd jël na ko itam teewul kay jaay moo gàddu moo gaarante ba tey ba tey nag kon lu ci am ci xeetu njëriñ wala lu mel ne kenn yàq ko mbaa am lu ci def ci tooñaange daal di fay loolu ñu fay ca yàq ga mbaa tooñaange ga ba tey aji jaay ji moo ko moom ba tey ba mu des nag yaar am na yaar yoo xam ne moom su jënd ko biyee lee jënd ga moo ko moom maanaam bañ ko jaayantee ci kaw xiyaar buñ àggee ci wéyal ga te ak jënd ji wéyal jënd ga diggante ba la fa juddoo ci doom wala bu dee xar kawar ga fa sax xeet kawar ga fa sax loolu kookee jënd moo ko moom waaye li bokk te yooyu yar moom jaaykat ba moo ko moom lu ci xew itam moo ko gàddu moom jaaykat ba duñu seet ci loolu nag ba xam ka amee woon xiyaar ba mooy ka doon jaay mbaa mooy ka doon jënd mbaa muy keneen sax ni nga ko dégg woon ci gannaaw aj jënd ji nag bu jëlee lañ doon jaay jaayu xiyaar te fekk muy loo xam ne mees na ci ay mbubulam denc ko ne nangam ak ki nangam bu layee rek ñu ne ko fayal jàmbur bi lu may nag mu am ay seere yu seere ne te dëgg-dëgg di wax na dëgg sagganu ci dogal ba rek a ñëw bu dee nag lañ doon jaay jaayu xiyaar ci jënd yóbbu woon na ko te it nag neexuta njubla ni mel ne ak dur kon bu ne yàllaa ci def coobareem rek dañuy gëm la mu wax waaye nag buñ ko wóoluwut faaw day waat ne dogal baa waaye man sàgganuma ci dara lu mu tuuti tuuti su mu tëwaat daal di war a fay su fekkee ne it wax na ne dogal baa waaye am na seere yu seere ne li wax dara amu ci mel ne bi mu wax ne ci la laatoo dana bisub gaaw la am ñu ne gaaw bi wax gis nañ li mu wax ci altine ja mu waree ko loolu kon weddi na lam waxoon su boobaa it faaw day war a fay saa yu waree fay dañu seet yaar yi lu ci ëpp rek mu fay ko ci kaw nag fekk kay jaay mu amee woon xiyaar ba in kaanal xiyaaru lil baahi yaar yooyu mooy njëg gën ko jaaye woon ak xayma ja buñ seetee na xayma ja war a toll daa bëgg a leeral ne su fekkee leen doon jaay day lu neex a njublan mu daldi ne daa sànku mbaa daa laatu ñu ne woon su fekkee ne amul ay seere day dañuy seet yaari lu ci ëpp mu fay ko te mooy njëg gën waxante woon ak xaymay loolee lu ci ëpp rek moom lay fay loolu lay wax ne su fekkee ne moom war naa fay xayma ja su mënee waat ne moom ci dëgg-dëgg sàgganu ci au moins seere waaye mën na maa waat ne sàgganu ma ci kon day waat ne sàgganu ca su boobaa ñu fayloo ko njëg nga xam ne moo gën a néew te bañ ko fayloo xayma ja loolu lépp nag daa fekk jaaykat ba moo amee woon xiyaar ba saa yoo xam ne jëndkat bi moo amee woon xiyaar ci yooyu jamono bu waree fay kon njëg lañ koy fayloo dee su ko fayloo xayma ja na bu fekkoon ne kiy jënd lu muy jënd day yaar waaye moom benn ba rek lay jënd jëndul yaar yëpp waaye nag daa jubóog jaaykat bi ci day yóbbu yaar yëpp seet bam ci tànn ne moom waxaal nañ ba njëg gi juboon nañ ci na muy toll jëndul tam yaar yëpp benn ba rek lay jënd waaye day yóbbu yaar yëpp nag seet ba xam ban la cay tànn mu ne kon bu dikkee ne yaar yëpp day daa laatu yàlla day def na ci dogal ba dañ koy wax ne ko benn bi moom fayal njëgam mooy yaar ya nañ seet benn ba na njëgg tollu woon nga fay ko benn ba ca des moom des lu ko fayloo ndax lii la caa wóoru woon bàyyi la nga yóbbu waaye fayal njëgug benn bi moom li waxee nag moom dañuy yemale fekk jaay gu nekkoon jaayu xiyaar ak mu nekkoon jaayu dog wax ji gën a wóor nag daa mel ni mooy day fekk jaay gu nekkoon jaayu xiyaar su fekkoon ne dafa yóbbu yaar yëpp waaye nag tey dafa boole woon xiyaar ak ixtiyaar maanaam juboo woon ci yóbbu yaar yëpp ba seet lu mu ciy jël itam dana amaat sañ-sañu teg ca nangami fan nekk ñetti fan bu dee ay yére ba xam dana wéy ci jënd gaam du ci wéy xam ne kon ixtiyaar ak xiyaar ñoo fi bokk tase moom yóbbu yaar yëpp nag mu ñëw ne benn ba dafa laatu ni ki daa lakk mbaa nangam ak nangam nga wax ne ko boobee nga wax ne moo laatu buñ ko xaajee genn wàll ga yaa ko war a fay jaaykat bi jaaykat bi itam ñàkk genn wàllam ndegam def na benn nag te yaar la woon nga ne woon ngay dem tànn kon ndegam diiru xiyaar bi jeexut bu la neexee tànn bi ci des bi nga xam ne moom laatuwut li nga wees léegi daa boole woon xiyaar ak ixtiyaar wa fi ixtiyaar yi faqat nag mooy njaay mi njaay mu dog la woon waaye dana woon nag te yóbbu yaar yëpp li fekk benn fan ba ñaar ci misaal tànn ba xam ban la ci tànn moom dikkee nag mu ne da ca am du laatu kon ba tey mel moom des na fi wax ne ko ba laatu ak bii laatuwut day mel ne benn bu ci nekk yaa war lu genn wàll ga nañu seet benn ba nga xam ne xamoon nañ njëgg nga fay jaaykat bi genn wàllu njëgg bii nga xam ne moo des laatuwut it yéen a ko seq fii mu nekk ci kaw nag nga fay ko genn wàllu xayma ja waaye nag bii nga toll moom du mën a wax ne tànn naa bi ci des téye ko ndax xam nga ne ixtiyaar dong la woon nekk ñu woon ci xiyaar xam nga yaar la doon jënd te jënd gu dog la mu yóbbu woon yaar yëpp nag di seet ba xam ban la ca taamu bi yoon nag moom benn sànkuwu ci waaye diiru tànn nga dafa jeex fekk da nga ko ne woon dafay benn fan baa ñaar mën ngaa yóbbu tànn boo ciy jël loolee jeex nag te jotut sa tànn benn waaye yaar yëpp ngi fi moom ñu wax ne kon ki doon jënd moom jaaykat bi ñoo seq yaar yooyu ca digg ba nenn nit bu fekkee ne jubóon nañ ci kenn ku ne jël benn ndax yaar la woon kon baax na waaye bu dul loolu dañuy jàpp ne yaar la benn bu ci nekk ñoo ko seq ku ne am ca genn wàll ndegam nag kenn ki mooy jaay kenn ki mooy jënd xam nga ne kii jënd moom kon faaw amul moom a génn wàllu kenn bu nekk ci yaar yooyu mooy fay lam ci war a fay li wax nii mooy ba tey dañoo boole woon xiyaar ak ixtiyaar maanaam yaar la waaye ki koy jënd day wax ne daa yóbbu seet ba xam ban laa ci taamu te bu ma seetee ba xam ban laay taamu itam di fekk sàngam bu ma neexee yëy ci jënd bi bu ma neexee bàyyi kon dañoo boole woon xiyaar ak ixtiyaar mu ngi ci noonu nag ba diir ba jeex ba jotuta tànn benn benn bu ngi wax ne ko bu la neexee génn ci ba set wecc ndax dangaa mel ni ko amoon sañ-sañu bu la neexee jënd bu la neexee bañ a jënd diir bi nag jeex na mel na kon da ngaa taamu bañ a jënd kon de su ko waral loolu dara ci naa ko faaw nga def nangam ci jënd baa dara la mu yel sam bu séyun rek dane woon alxiyaar ñaar la wax na benn bi muy xiyaaru taraw wi mu jàll si ci bu ñaar bi muy xiyaaru naqiisati moom mooy loo xam ne daa jënd ba noppi gis ca sikk mbaa am lu mu ca sartoon loo xam ne ku ko dégg xam ne lu ñu fonk la lu jiite woon la ca loolee te nag amu ca li mu njëkk wax nag mooy li muy jënd daal waxoon na ci nangam am te ku ko dégg xam ne loolee moom daañu ko ci yittewoo daañu bëgg mu am ca doonte sax sàtt gam sàtt na ci nangam am du lu wax ci làmmiñam du lu ñu bind waaye karoon jaay ci boppam moo doon jëptaane ci kaw di wax naa kuy jënd nangam lu mel nangam kuy jënd nangam lu mel nangam moom mi jënd mu daal dikk rek jàpp ne loolee muy jëptaane noonu la amee daal di jënd bu ci fekkum noonu itam mën naa génn ca njënd ma ndax moo ko lu ñu sàtt ñoo yemoo tey misaal loo xam ne ayis na ko yittewoo ci la ngay jënd man yooyu jamono ku masaa di jënd ab jaam da nga ci yittewoo mu mën a togg mbaa mu mën a ñaw mbaa mu mën a fóot kon lépp loo xam ne daa ayis na ko yittewoo ca loola bu ko ca sartee ne na ci am te amu ci rek mu mën a génn ca jënd ga jamono jaam amee ba nga jënd jaam bu jigéen ni man kat damay sart mu doon ab jeeg te bañ a nekk xiik mooy nay ku am ndawam deñ waaye bu mu nekk ku amul ndawam bu mu ko jëndee ba noppi nag ndekete ndaw ga dégit ma nga ca kon bu ko neexee xàcc ci kaw nag fekk fekk mu waatoon ne du ma jotee gone du ma jotee kudul ab jeeg ab jeeg rek laa jotee loolu waatoon ci yàlla moo tax bi mu jënd itam mu sart ne jàmbu jigéen bi mu jënd na nekk ab jéeg kon nag bu ko fekkee muy xiig muy gone mën naa génn ca jënd ga moo xam la mu jënd day suuf mbaa muy marchandise mbaa muy sax lu bokk ci xeet wurus mbaa xaalis bu fekkee am na sikkus ca nekk soo xam ne lu ci ëpp moom daawu ci am koo ci fekk rek xam ne lii moom daawu ci am moo xam dafa yàq jëmm ja moo xam da feeñ ci njëg ga moom daal dagam fekk na ci ak manqué goo xam ne daawu ci am rek bu ko neexee génn ci jënd ga yooyu jamono jaam daa bari woon ñu koy jaay ko jëndante waaye am na ñu tudd fii yoo xam ne mën naa am ci jaam mën naa am itam ci leneen lu bokkut ak jaam ci xeeti ndundat mel ne ak jur wala xeeti daaba yi niki pat wala ak ngumba wala am lu muur bët ba ba bët bu mënta gis bu baax wala li ñuy wax bémbañ ñàkk gis ci guddi gi wala làggi wala li ñuy wax tàpp dañuy wax ne moom bu dee ci nag tàpp ga du doon sikk ndax li ci ëpp moom ñoom nag yi daan jëfandikoo dañ leen daan tàpp bu dee ci barab boo xam ne moom xëy na tàpp ga sikk la fa ñu door a seet waaye daal dañuy dàpp ne ñoom jooy jamono nag bañ ci daan jëfandikoo faaw dañ ko daan tàpp bu dee ci barab boo xam ne moom xëy na tàpp ga sikk la fa ñu door a seet waaye daal dañuy jàpp ne ñoom jooy jamono nag bañ ci daan jëfandikoo faaw dañ ko daan tàpp mel ne kon tàpp du ca doon sikk mooy nag bu jëndee ab jaam fekk bët ba am lu ko muur gis ba neexut mbaa fekk jaam ba pat mbaa mu am ñuy wax suuxu bët dafar am suux la wuy nekk ca bët ba mbaa mu fekk jaam ba amee ak laago mbaa mu fekk ñu tàpp ko mbaa muy jaam bu jigéen bu noppi amee deret jàngoro yépp kon mën naa génn ci njënd ma wala muy liggéey ab càmmooñ mënta liggéey ab ndeyjoor càmmoñ rek la mën a liggéeyee wala sawkaay ba xesaw yépp bu ko neexee génn ci njënd ma bu jëndee ab jaam ndekete naankat sàngara la wala ab njaalookat la moom daal jënd na jaam bi waaye sax na ne njaaloo woon na wala naanoon na sàngara wala tuxoon na yàmbaa mbaa xeet yi deme noonu nekki di jëfandikoo dorog yooyu yëpp kon mën naa génn ca njënd ma dañuy wax ne néew kawarug naq tegtal la ci amee jàngoro ak ñàkk wér lay wane kon nag bu naq ba néewee kawar bu ko neexee génn ci njënd ma bu jëndee ab jaam fekk mu dangar bëñ ya na war a tëddee daa am lu ci yokku daa am bëñ ci yokku loolu sikk la bu jëndee ab jaam fekk mu amee ngaana mbaa boog maamam mbaa baayam am na ci ku masa ngaana kon mën naa génn ca jënd ga ndax lu dal ci cosaan la muy yaay ja mbaa baay ba mbaa maam ya mën naa wàll si ci moom bu jëndee ab jaam fekk mu dof dof goo xam ne yàllaa ko ko mooñaale du rek lu ko dab yàllaa ko ko mooñaale kon mën naa génn ca jënd ga bu dee ndaf ko ko dab rek nag xam daa am sabab kon du ko tax a sañ a génn ca jënd ga bu jëndee ab jaam fekk mu am aw jaal ca reega ba yi nga xam ne bu deree mooy feeñ bu amew jaal rek loolu sikk la bu dee nag ko rafet loolu nga xam ne ko jënd taar baa tax nga di ko jënd bu xasee amu jaal doon te nekkul ca njëlbéenu génn gi itam maanaam nekkul ci reeja itam du tee rek sikk la benn bañ ah ndegam moom du jaam bu jigéen boo xam ne ko jënd taar ba nga cay seet jaal wa nekkul ca njëlbéenu gémmiñ ga maanaam lay feeñ bu deree kon benn bañ rek rot mooy am jaal benn yoon rek wenn jaal dong daal du tax ñu sañ koo xàcc na ëpp rek benn jaam bu jigéen boo xam ne dafa am taar loolu koy jënd taar ba nga cay seet ku ko jënd fekk ca bijaaw rek sañ naa génn ca jënd ga bu fekkee nag du jaam bu taaru boobu beneen la fekk ca bijaaw boo xam daa néew ni ki benn kawar mbaa ñaar mbaa ñett duñ ko jàppe sikk waaye bu xësee bari moom itam ñu jàppe ko sikk su koy may mu génn ci jënd ga ba tey mënul wax sawlal sikk la bu jëndee jaam muy sawlal ci waxtu woo xam ne war naa weesu sawlal bu ko neexee xàcc waaye nag day fekk mu wóor ne sawlal gi dañ ko koo jaayaale nga xam jamono nekkee ca jaaykat ba daana fa sawlal mas na faa sawlal bu fekkee ne ki jënd daa wax ne jaam bu jigéen bi mu ma jaay day sawlal te xam naa ne dama ko cee jaayaale ñu daal di jubóo ci teg ko ci loxol ko ñu wóolu muy jigéen ne moom mbaa góor goo xam ne amee na soxna mbaa yaay ji ko mën a saytu kookee ñu wóolu nag tegoon jaamu jigéen bi ci loxoom ba xam dana sawlalam déet bu ne sawnalal kay daañu gëm la mu wax su boobaa nag jaaykat bi war naa waat ne man day laata ma koy jaay moom xamu ci woon moom sawlal la mu nekk fa man lépp daal moom daawu sawlal kon nag day lu yees waaye nekk lu ma ko ci jaayaale daa tudd rek jaam bu jigéen ne in baalat ba ni tudd soxnaa kañu wóolu ka ne doon jigéen mbaa bu dee góor mu amee soxna mbaa yaayam ji ko mën a saytu waaye bu doon jaam bu góor it noonu la sawlal moom sikk la ndegam teg nañ ko ci loxoy ku ñu wóolu mu wax ne moom day saw nalal faawu jaaykat ba waat ne man daal baa ko yoree mu nekk fi man xaw ma ci moom genn sawlal su ragalee waat loolu rek ki jëndoon sañ a delloo jaam boobee ku jënd jaam bu góor gis muy jigéen jigéen lu maanaam ci ay waxinam ak ay jëfinam ak ay yëngatoom ak yooyu moom góor la waaye da cee nur nur lu jigéen kon loolu sikk la bu ko neexee jënd ci jënd ga ba tey bu jëndee jaam bu jigéen boo xam ne day nur nuru lu góor te it da koo siiwee boole ca istaharat bi dalika kon moom mi ko jëndoon mën nag génn ca jënd ga dañ wax ne jaam bu góor bi moom muy nur nur lu jigéen day tax mu daal di nekk ku na sax ku mënul dara daanaka mel ni jigéen te nag jaam bu jigéen bi moom nur nur lu góor teewu koo yànj teewu koo man lañ bëgg ca moom da cee bon daal mooy mu siiwee ko bu ko xasee siiwee moom daal doon sikk bu fekkoon ne nag jaam bu góor bay nur nur lu jigéen mooy day jëf ñaawteef wa mooy moroomum góoram di jotee moom ca bunt suuf ba loolu kon day mel ni njaaloo nga nga weesoon sikk dëgg lay doon ba tey bu fekkoon ne jaam bu jigéen ba day dajeeg jigéen bi moom ñuy bombante ay sawukaay ba am ba yëg bànneex bi nga xam ne moom lañ yëg ci googu wàll it bu daal di mel ne kon njaaloo nga doon sikk bu wér a wér tëj ji jàngoro ji nekk ci weewu daaba ja mel ne fas tëj googu mën na koo dal ca weewa